baabu ngi ab buntu la fi taxaamu ci ñam wa sharaabi ak naan day bëgg a dugg ci mbirum teggiini lekk ak naan wa iza akalta ndem bëgg ngaa lekk aw sharibta wala nga bëgg a naan fa waajibul aji war la xaleeka ci yow an taqoola nga wax ne bismillahi wa tatanaawala te ngay yeewtoo bi yaminika ci sa ndeyjoor fa iza faraxta ndem noppi nga fay taqul na nga wax ne alhamdulillahi bokk na ci teggiin lekk ak naan boo bëggee lekk mbaa nga bëgg a naan nga wax bismillahi bañ koo fàtte te it bu dee lekkul bu dee naan nga defee ko sa ndeyjoor bañ ko defee càmmoñ waxasan aj rafet la antal xaq nga mar yadaka sa loxo xab la masiha njëkk ak fompam maanaam sa loxo boo lekkee ba noppi taamu na nga mar ko bala nga koo raxas mbaa bala nga koo fomp mar googu taamu nañ ko ndax bañ yàq li des li des ci ñam ci sa loxo nga bañ ko yàq wa min aadaabil ak li bokk na ci teggini lekk an tajxala nga def batanaka sa biir tulufan muy ab tulus li taxaami ñeel ñam wa wa tulufan aku tulus li sharaabi ñeel naan nga wa tulufan aku tulus li nafasi ñeel noo ba maanaam bëgg nañ boolee lekk nga sàmmonte jëmmi li ngay lekk na muy toll nga xam ne biir bu fees dell da nga koy def ñetti xaaj benn xaaj bi mel ne moo def ñam wi benn xaaj bi mel ne mooy féeti wa naan gi benn xaaj bi dara wu ci nekk mel ne nga koy bàyyi di ko nooyee rek noonu wa iza akalta ndeem lekk nga maxaa rika am na pour yow akalta nga lekk maa ca la nga xam ne yële ka dana sës ci yow bokk na teggin lekk boo bokkee kenn ci ndab di lekk nga yem rek sa kanam te bañ a dem ci kanamam bañ a dem ci digg bi lu may daa am loo soxlaa jële ci digg bi loo xam defuñu ko ci pegg yi wala taaxud te bul jël luqmatan ab kit xataa tafruxa ba tiwee al uxra ba ca des maanaam boo tibee benn kit da koy sàq bi bu baax ba mokk ba jàll nga doora saxaat beneen waaye bu benn demaat fekk ci girim gi beneen boo xam ne mokkutoon wala jàll gu toon wala tatana fas te bul noyyi fil inaay ca ndab la xinda show bi ka fas ak naan wal tubin na nga soril alxadaxa pot ba xan fii ka walis sa gémmiñ su ma toxaawut fa topp da nga ko baamu in shiita ndeem soob na la bokk na ci teggi ni naan boo dee naan ba war a noyyi da ngay toppale pot bi ba noyyi bu ko defee boo màndiwut tàmbaliwaat naanaat waaye di noyyi ci pot bi moom taamuwuñ ko wala taamu ba te bul gëndax li alma àndox ma xabban ak gëndax li wala te mas saxoo na nga ko ñeer massan ak ñeer ñeer mooy muuc rek ndànk maanaam taamu itam ngay buux guux yu mag a mag xam ne ñu jégg ni muy jàllee bu leen wu xumba xumba li gën mooy nga def muucu tuuti tuuti ñëw rek ba kera ngay mànde wattaloo ko da nga sàq mi taamaka saw ñam wattu nax yi ma xoote nga koy nooyal madaxan ak sàq mi xam la bal xixi ci njëkk ak wannam maanaam taamu nañ ñam bi boo ko dee lekk nga sàq mi ko ba mokk bu baax ndax loolu mooy tax bu jàllee ci biir yomb rees waaye bu fekkee ne léegi sàq mi ko bu baax mën naa am rees gi yefeñ dañuy jàpp ne waaye bu fekkee jëmmi ñam bi ci bopp ñoroon ni war a ñore nga sàq mi ko ni nga ko war a sàq mi lekk ci tam lu yem bañ a ëpp soobu yàlla du am yenn wàññen wata navufu te ngay setal faaka sa gémmiñ ndax da taxaamaka ci gannaaw saw ñam muy gannaaw boo lekkee ba noppi bu bàyyi sa gémmiñ rek noonu taamu nañ nga setal ko sa gémmiñ ba mu set kalax ndiku mbaa dentifrice mbaa leen loo ko defee ba mu set way na xasal te nga raxas nga yàddaka sa loxo bi na la xamale ci ñaay wala bañ ak mu soow faxasan kon aj rafet la maanaam taamu nañ bu fekkee ne sa loxo dafa danga lekk lu niin mën naa doon soow mën naa doon leneen lu ñu mel ne yu nii yi nga xam yëpp rek danañ taamu boo noppee raxas sa loxo te bañ caa bàyyi nii naay boobu waxtu xalilu te ngay dindi mbaa te ngay sekkaritu maa la nga xam ne taalaq aju na bi as naa nekk ci say bañ bi na taxaame ci ñam maanaam bëgg nañ boo lekkee ba noppi ñu des ci sa say bañ ci xeeti ñam wi nga fexe bi dindi ko moo xam da nga koy sekkaritu mbaa da nga koy soccu mbaa da nga koy dentifrice te bañ ko cee bàyyi wana xaatiroo woon na rasul yonente bi alayhi salaam xalil ak bi walis lekk wa shurbi ak naan bi shimaali cib càmmoñ dañuy aay lool nag yonente bi aay woon na lekke ab càmmoñ wala naan ab càmmoñ ngay fexe bu way lekk wala ngay naan defe ko sa loxom lay joor watu naa wilu te ngay jottali ida shurubta ndem naan nga ba noppi man ka nga xam ne xalaa yamini ko nekk nga sa ndeyjoor en taamu na yow boo jëfandikoo ba noppi mel ni naan nga ba la féete ndeyjoor nga jottali ko bu jot li nag ka la féete càmmoñ te fekk am ku la féete ndeyjoor ki la féete ndeyjoor moom moom nga war a njëkk a jottali waloon xaa def na tari xam ne naf wali suwal wala mooy ëf fi taxaama ci ñam wala sharab bi ak naan wala kitaab bi ak téere maanaam di ëf loo xam ne ak lekk la wala ak naan la taamuñ ko ndax dañuy bañ dara bàyyi ko sukki mu rot ca nga seexlu ko keneen seexlu ko ko defee mu turu ko mu yàqu loolu xam nga ne ëpp naa def am bind itam nga di ko ëf taamuñ ko maanaam bind boo bëggee mu gaawoo say boo nga xëpp ci suuf bopp baa nga fi séndul ci naaw yi waaye nga ëf ëf ko ni moom mbind mi sib nañ ko moo xam alquran ngay bind moo xam leneen ngay bind waxaana shurbi awalis naan fi aaniyati dhahabi ci ndabi wurus wal fiddati ak xaalis li ngay jëkk xam rek mooy ndabul liggéey ci wurus ak mbaa xaalis dafa araam araam na ci góor araam na ci jigéen araam na nga am ko araam na itam nga jëfandikoo ci dara moo xam def ko da nga koy raxasoo mbaa da nga cay def lekk mbaa da nga cay def naan mbaa da nga koy teg ne képp sax ci def ko mooru sax loolu sax góor sañu ko si si jigéen sañu ko wala bas ay bishuru bi ci naan xaa iman mbir mi aji taxaw nga taxaw di naan moom dara dara si dara si ko ci mën ngaa taxaw naan mbaa nga lekk mën ngaa toog naan mbaa nga toog lekk ñooy moo wala yam baxi bu yàlla li ma ñeel koo xam ne akala lekk na al qurrafa roofat awil tawma wala laaj awil basala wala soble ñuy am ci ak gajëmu gajëmu mooy togg ni ko ñorut ay yabu xolam mu dugg almasjida jàkk saa yu lekkee roofat wala laaj wala soble lépp lu am xam ko naqar wala mu tox tox ci la yooyu day araam ci moom mu dugg jàkka wala mu dugg ci bërëb boo xam ne faa daje ngir defee tudd yàlla ni ki jàngal xuraan mbaa jàng xam-xam dañ koy aaye mu dugg ci bërëb yu noonu dina am xas na am xel bu naqari waaye nag ni mu ko waxee rafet ji wala soble si bu fekkee ne ñorut muy am xet googu xëy na bu xasee ñor na moom mën na bañ a am xet googu dinañ ci boole itam tux ne leen bu xasee tux saxas naqari xel soosu ba tey bokk na ci lu sañ a demati jàkkaat bërëb yooyu ñu tudd yàlla loolu ko rafu dees na sit ay yàqu la mu lekk murtaki an mbir muy aju soonu maanaam lekk soonu taw mooñ ko ndax day mel ne kon dangaa suuy dangaa yëgul xéewal booy gën yàlla xéewal lekk suk lekk soonu daal moom ëpp naa def sib nañ ko ma yëkk roofu def na sib al akul lekk muy la sib cere ji ci bopp cere ji daa wax bopp cere ji waaye mooy digg cere ji tawit bu cere dong bu dee leneen tam ngay tibb ci digg ba bàyyi sa kanam daal loolu nga xam ne rek sib nañ ko nga am ci sa kanam rek te bañ a tibb ci digg ba mbéy nag daam ci digg ba mu ñu jëli loo xam ne ko faa teg ñu ko aada woo defa ci suñu aada loolu kon moom du du aay wala mu tareef na xanul xiraani walis lëkkale fi pamri ci tàndarma maanaam tàndarma wu ko nuru ndax lu tàndarma doon mel ne reseñ ci laa yoonu mel noonu nga koy lekk ba noppi di boole ndoo ñaar ba mbaa ñett di ko seexandoo benn yoon mu ne loolu aay nañ ko aay tàndaroon am na mu ne waxi la waxees na ne inna zalika naka loolee maxal asxaabu mooy bu ànd ak moroom ya ak surakaay ñu doon bokkaale fii ci moom di wala bu asi ayit di zalika ci loolee maxal ahlika ànd ak sa waa kër aw maxa xaw min wala ànd ak aw nit takkoon na ñoom da nga nekk ante yow ab xam taxum di leen ko leel am na ne bu ñu aayee nga boole ñaar doomi gerte wala ñaar doomi tàndarma wala leneen ci xeet doom yooyu saxandoo day fekk nga bokk loolu lekk ak ñoo xam ne yéen a ci yenn àq yéen ko bokk jënd mbaa ñu bokk leen ko may mbaa ñu bokk leen ko sarax mbaa ñu doon nga xam ne daal boo defee noonu da nga leen ëppale te war leen ëppale loolu la wax ne kon foofu lay aaye mais bu fekkoon yaa ko jënd woo leen ci rek am ñu ci àq yow yaa ko moom su boobaa am na kon mën ngaa def loolu waaye nag mu ne jaadu na wala baasi ayut fi tamri ci tàndarma wa si fi amul moom moom an taj wala mu wàññee lu yebbu ko sa loxo fi inaay ci ndab la li ta akula ngir nga lekk naatu la nga nam min xuja moom nee na lépp loo xam daa mel ni tàndarma mbaa gerte mbaa resan nga xam ne day ay doom yu wuute xam ne xëy na doom yi ngay taamu bokkute yëkkee taamu kon nee na mën ngay tànn doom yi nga taamu yow di ko lekk bàyyi ci des ndax keneen tam xëy na bokkoo ak bëgg moom mën na taamu doomee ci des moom di ko tànn di lekk wala sa rasul yo di jot wax loxo xam la taxaana ci njëkk ñam mu ne sunnati mi bokk ci sunna illaa an yokkoon rek dafa nekk bi xaaj loxo bi aban sobe nee na boo bëgg a lekk sa loxo taqul dara dara dañu sopp nga raxas ko dañu raxas su fekkee nag léegi loxo bi dafa amal sobe mbaa loo xam ne boo ko lekkaale xëy na mu wàññi dara ci biir yaram su boobaa day war moom nga raxas ko ndax sobe sa nga su ko lekk bu dee lu war a wér a dimbaa loolu itam kenn du la sa bopp te du ko xam waaw bu fekkee taqul deful dara daal kon jëlul raxas wàññi wax seen raxas yedd wala loxoom ñu faafu ak gémmiñam bax na taxaw ci gannaaw ñëw wax mu ne xamari ci ñaay ñu ne saa yoo lekkee loo xam ne am na ak ñeen maanaam lépp lu ñeen rek boo ko lekkee ba noppi bëgg nañ sa loxo bi nga doon lekkee ak sa gémmiñ yëpp nga raxas ko ba mu set bu dee gémmiñ nga lax ni ko mbaa neen moo ko defee ni ki socc wala daan fiis ba mu set wala mu majj mudd na galaxndiku caaxu gi mu ñam mën a labani ci soow bu fekkee dafa naan meew ne daa wax soow waaye meew la jublu ndax meew dafa am ab niinaay su fekkee dafa naan meew meew moom la dafa galaxndiku nagal moo tax mu galaxndiku waaye bu bàyyi noonu rek wa kuréel si def na xasal yëpp raxas loxo bi taxaama ci ñam aw bu seen wala ci dara ñoo xataanee ci jiiru saw yi maa lekk ba noppi nag dend aw ñam daal ci dugal sa loxo dana ko ci raxas dana nga lekk si baagal rek bu waaru tepp wala ceeb dend yam laa wekk ci biir ci loxo dana ko ci raxas dana bëgg mu set dal daal tàmm nañ ko sib nañ ko mu doon sab sax noonu may suñu xeetu sab nga doon sa loxo mel ne koy raxasoo wa kazalika naka noonu bu mu xaalati ci cox ab cox sax nga leen nag moom jël sa loxo def ca ndax ni nga lekk ba noppi nga dugal ca loxo ndax mel ne koo raxasoo moom cox bi sax nee nañ tàmmuñ ko sara bi na moom du fat ràññat le bu dee coxub bele daal lañ koy aaye nee na ndax daa mel ne ñoom waaye bu dee coxub li ñuy wax lors moom dootu ko aaye ko xajof tamit fa wéeteef na fii zalika ci loolu dana wéeteef na ci loolu am nañu ko daganal am nañu ko daganal waaye maanaam daal am ñu ko dagañ am ñu ko sib waaye sib gi moom moo gën a wér ni mu ko waxee léegi moom téere bi wal tujib na nga wuy ji isa doyita ndem wooweef na la ilaa wal yu mat li war si jëm ci xew ceet ilam yokkun dem nekkut xunaaka foofee laxoon po mashhur mu dinañ siiwee wala mun karum bi caageenu lu ñu sib maanaam lu bon tawunum yi aji bés nee na bu la woowee ci xew ceet bu takkut julit taraam yàlla nga xam ne yow dañ see tur ba dañoo wax ab lim boo xam ne jàngal nit ki ñoo ñoo la ci jàkka ji te fekk nga bokk ca dañ la ràññeel kon su boobaa kon nee na war ngaa wéy wi lu may nag dafa mën fee def yu aay loo xam ne nit ñaa ngi fee po po moo xam ne dafa tas wala dama leneen lu fay lu fay xew loo xam ne jaabu ni ci góor ji yéen dañ fay jaxasoo yooyu yëpp kon moom nee na say boo toog kon moom boo dem yow bu ci amul moom nga war a wéy ji waante nag fi ak lu ci lekk nga dul xiwaar mat na ci tànn nee boo ko siiwul rek baax na jumb la koy joxe ci ñam moom boo bëggee lekk lekk boo bëggee bàyyi bàyyi waaye tam la farsi na boo ko siiwul ji faaw nga lekk waqad arqasa wala mel na maliku malik fi taxallu fi ci ruusaanu li kasarati siha mën naa si ngir barik boo ko boo loo nit ñi siha ci xew cër yooyu maali sax nee na bu fekkee ne cër gi bari mbooloo buux buux loo ko day dal sax dëgg la ñu jooram la dagam ràññal la waaye moom laa jégal nga far toog waaye am bu dee kilifa boo xam ne jaxasoo boobu daal xaw na ko diis baabu ngi ëbbante la fi salaama ci nuyoo wal istizaani ak diisoo wa tanaaji